dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen mbokki salaamaaleykum ginnaaw bi leen nuyoo ziyaar leen rafetlu seen ànd ak Rafah TV bisimila ci seen émission jàngat bi ànd ak yéen dimanche bu nekk di leen jàngatal poñ yu leen solal naka noonu itam tolluwaayu réew mi lu mu ci doon itam ñu ci dalal ñi seen xam-xam màcc jëm ca wàllu woowu li mbokk yi tey ji ñu fas yéene waxtaane loo xam ni soxal na askan wi loolu loolu moo di faux médicament faux médicament nag ci leeral mooy garab yi nga xam ni euh, mooy bàyyeekoo ci kër docteur te lenn ci garab yooyu lee kër docteur sàkk woon ngeen ñu di ko jëfandikoo ndax baaxut ci askan wi garab yooyu nag jamono ji yaatu na lool ci réewum Sénégal ba tax na tey jii moom lañ fa yéene waxtaane ci waxtaan wi ñu ci ànd ak docteur Arona Diouf moom ile Adjuma Diouf moom ile moo nekk secrétaire général ci regroupement de pharmaciens de la région de Diourbel euh, docteur maa ngi lay nuyu euh, maa ngi lay fay mhm. sëñ Ablaye mhm. maa ngi nuyu seen euh, téléspectateurs yëpp mhm. di sant yàlla ci opportunité bi ngeen ñu may pour tey ñu ñëw fii mën a waxtaan leeral euh, gindi euh, askan wi ci wàllu garab bi nga xam ne moom mooy suñu métier mooy lu ñu jàng mooy ci li ñuy yëngu donc euh, di la sant bu baax a baax ci invitation bi ak opportunité boobu noonu. jërëjëf docteur Adiouma Diouf moom mi ci ni ma ko waxee léegi mooy secrétaire général regroupement des pharmaciens de la région de Diourbel docteur Euh, faux médicament nag suñu koy wax fii ci réewum Sénégal amaa na ñu bare bari mën na ñoo xam tur wi waaye ñu bare bari ñi ngi koy jëfandikoo ndax gën a yomb ko keneen yu ko nuru yéen nag ngeen nekk euh, regroupement boo xam da ngeen taxaw ngir xeex loolee d' abord li ma njëkk li ma bëgg a moo di seen groupe seen regroupement boobule ci ban anam ngeen ko taxawalee ak lan moo nekk sabab bi ak ban taxawaay am ci loolu yi am na solo sëñ Ablaye waaw regroupement des pharmaciens de la région de Diourbel la ñu wax bi ñu waxee regroupement pharmacien de la moom mooy kuréel bi ëmb pharmaciens yi nekk ci région de Diourbel bi yëpp kuréel boobu noonu daanaka bi ñu ko sampee xale yi. Mhm. léegi mu mat ëpp na ñaar fukki at. daanaka euh, vers les années 2000. Mhm. wala suñu mag ñi ñi fi nekkoon. Mhm. ñi fi daanaka pharmaciens yi fi njëkk a installé. ci euh, maanaam euh, mbooloo daal ci dayoo. donc ñoom ñoom ñoo ko sampoon. donc bi ñu sampee. lii taxoon lii tax a jog regroupement bi mooy défendre lépp luy intérêt wu pharmaciens yi. dimbalante ci ñu biir. yokkante mhm. xel ak xalaat mhm. ci formation wàllum formation continue mhm. donc loolu moom moo sabab euh, regroupement bi tey donc euh, ay mbooloo buñ dajee ci bërëb di liggéey bokk liggéey bi yoon la ñu am kuréel boo xamante ne ñooy seetu seen i mbir d'accord tey ji regroupement pharmacien de la région de Diourbel donc boo seetee quatre-vingt-deux pharmacie ci bés bi si tey moom la ŋànk moom la ëpp 82 pharmacie yi ni ñu répartiroo 47 yi ñu ngi biir Touba. d'accord euh, neuf yi ñu ngi commune Mbacké. Euh, ñu ngi Mbacké neuf yi. Euh, Diourbel am 13. Bambey am 13. 13 donc loolu moom mooy regroupement des pharmaciens de la région de Diourbel boo nga xamante ne man mii tey man maay secrétaire général bi. Mhm. am nañ président. Mhm. mu ngi tudd docteur Mor Diagne moom mu ngi Mbacké. Mhm. maa ngi koy ziar au passage. donc euh, am nañ euh, bureau boo xamante ne am na trésorier euh, président secrétaire général ah ay commission donc commission communication scientifique. Mhm. commission sociale donc maanaam lépp lu aajo ci association daal am nañ ko. Mhm. am nañ it ay kayit. d'accord kayit yoo xam ne am nañ récépissé boo xamante ne déposé nañ ko en bonne et due forme. mu mhm. ngi ci au niveau des ci kiiw ci ku ci mu ngi au niveau préfecture. donc am nañ kayit. boo xamante ne association de pharmaciens de la région de Diourbel moom moo ko moom. merci donc loolu moom mooy euh, mhm. vraiment. ci regroupement bi ba ponk ci regroupement bi. d' accord jërëjëf euh, docteur Adjuma ci leeral yu am solo ci bi da ciy baax. waaye nag docteur te ñu fas yéene waxtaane loo xam ne soxal na askan wi mhm. ndax askan yu baree bëri samp nan laaj jëm ca moo di faux médicament mhm. moo di garab yi nga xam ne wax dëgg yàlla euh, ko docteur digaloon ñu ngir ñu di ko jëfandikoo te fii ci réewum Sénégal ba léegi ñu way di ko jëfandikoo mu yaatu fi loolu nag waaye nag euh, docteur. tey sénégalais bi nga xam si mi ngi jàkkaarloog ñun bëgg a ràññee ban médicament maanaam ban garab lañ war a jëfandikoo ak ban lañ war a jëfandikoo tey soo ñu doon leeral ci faux médicament dëgg-dëgg mooy lan lan mooy foo médicament. Euh, ci gàttal euh, pour tontu ci question boobu déjà faux médicament. Mhm. dafa nekk loo xamante ne nekkul Sénégal dong la am. d'accord cest ci àdduna bi yëpp wërngal képp fépp foo dem am na foo médicament. d'accord loolu moo waral. Mhm. kuréel bi ñuy wax OMS organisation mondiale de la santé. Mhm. taxaw. thème définir wax ne fu ñu dëkkatee faux médicament lii la ñuy tuddee foo médicament loolu àdduna bi yëpp bokk ko mu yem mhm. organisation mondiale de la santé dafa wax ne mhm. faux médicament fépp foo ko déggee mooy médicament boo xamante ne daa wàcc yoonam ci Dakar ci wàcc yoonam maanaam mhm. tey ji médicament fi ñu koy defaree ay pharmaciens ñoo koy defar fu ñu koy transporter ay pharmaciens ñoom ñooy nekk ci chaîne de transport bi ñoom ñooy surveiller transport bi fu ñu koy stocké. ay pharmaciens ñoom ñooy euh, denc stock bi. ñoom ñoo koy denc. ba mu ñëw ci dëkk bi mu war a ñëw. Mhm. ni ñu koy distribuer fu ñu koy jëlee ci fi ñu koy stocké pour yóbbu ko ci pharmacie yi. Mhm. ay pharmaciens ñoom ñooy suivre yoon boobu noonu. procédure bi ba pharmacien bi ñu koy joxee fi ñu koy dispensé. maanaam ci pharmacie bi ay pharmaciens ñoom ñooy suivre processus boobu noonu. donc donc médicament dafa nekk loo xam ne dañ ko sécuriser ba nga xamante ne. Mhm. ca fañ koy defaree. Mhm. recherche ba. ba fañ koy defaree ba fañ koy joxee ki ko soxla. ki mhm. koy jëfandikoo. Mhm. pharmacien moom moo nekk ci yoon ma. léegi heure bu wàccee yoon boobu. heure bu wàccee yoon boobu dañuy naan euh, garantiratuñu. ndax lépp li liñ ci war a seetu seetu nañ ko ci. Mm-hmm. donc tey jii pour bañ rek euh, askan wi loru ci foo médicament yooyu noonu. Mm-hmm. dañ leen di wax ne. Mm-hmm. ñu jël médicament boo xam ne si circuit normal boobu rek la jóge bu jógewul circuit normal boobu rek dañ koy jàppee comme faux médicament maanaam ci yoon bi am na lu ko lu ko lu ko lu ko war a mën a euh, yàq ba. dootul mën a euh, jëriñ askan wi. bu dee ci defarin ba. su fekkente ne fi ñu ko defaree. nekkul ay pharmaciens ñoom ñoo ko. ñoom ñoo ko defar. Mhm. donc dañuy jàpp ne liñ ci war a saytu yëpp. Mhm. saytuwuñ ko. bu dee ñi ko war a transporter. Mhm. du ay pharmaciens ñoom ñoo ko organiser. maanaam condition de transport bi. ban température lañ koy transporter ndax fi ko transporter amul humidité ndax amul ndax du euh, yi du yëngatu bu boo xam ne day jaxase principe bi ba mu mu soppee ko doon leneen. loolu yëpp dañ koy xool pour euh, ràññeetle euh, médicament boo xam ne baax na ak boo xam ne. qualité am daal. day teexal wóoruñu moo tax organisation mondiale de la mhm. tënk ne. Mhm. lépp lu wàcc ci yoon bi mooy wax nii dañ koy considéré comme médicament am ne wóorutul. wóorutul wóorutul ndax li si biir ndax lu ci diggante bi lu ci luñ ci mën a rax dafa bari. Mhm. tey ji boo seetee ñi di def euh, contrefaçon. d'accord contrefaçon buñ koy def dañ koy dem ñoom dañuy fexe ba euh, li ñuy contrefaçon ñuroo ak médicament bu baax ba. bu dee couleur dañuy fexe ba couleur bi méngoo bu dee bind dañuy fexe bind bi méngoo mhm. waaye li nekk ci biir ferñeent bi nekk ci biir mhm. moom mooy wute te loolu askan wi koy jëfandikoo moom munu ko natt mënu ko gis mhm. mënu ko xàmmee léegi moom pour ñu éviter ko muy juum wala muy def dugg ci erreur dañ koy wax ne fii yoon bi ñu tracé nii pour garab bi war a dugg Sénégal ba yegsi ci ci yow yoon bii la ba lépp lu ci wàcc rek garab googu teen tey na xel moytu. merci beaucoup loolu euh, ci gàttal mooy procédure bi nga ma leeral noonu. Mm. Euh, maanaam médicament fi mu war a jaar. Mm. ba tax ñu war koo jëfandikoo. Mm. waaye askan yi bari askan bi bari na ci ñoo xam ne seenum njàng demeewut noonu. ban mën a saytu loolu yi. yéen ñi nga xam ni itam yéen a yëngu ci wàllu man ngeen koo xam léegi askan wi nga xam dafa noppi ngir jëfandikoo garab yooyu de naka la mën a def ba man koo ràññeele. ci naka léegi fii Sénégal. Mm-hmm. exemple euh, circuit boobu ma ne ñaar la. d'accord femme circuit de distribution Euh, privé ak circuit de distribution public maanaam mhm. eh, ñi nga xam ne public bi ñi nga xam ne mooy hôpital yi mhm. hôpital yi ak poste santé yi ak centre santé yi fi seen garab di jóge bu ginnaaw ba mu duggee Sénégal ak eh, pharmacie yi nit yi ñëpp xam te mu nekk ci koñ yeex gox goxaat yi mhm. dafa am ñaari circuit maanaam tey fer garab bu duggee Sénégal bañ contrôler ko ba pare léegi dafa am circuit national boo xam circuit public boo ne PNA moom moo koy doxal maanaam garab bi day ñëw dem PNA. d'accord pharmacie nationale d'approvisionnement. PNA yóbbu ko ci pharmacie régionale d'approvisionnement yi. mooy PRA li ñuy wax PRA. Euh, PRA yi yóbbu ko ci district yi dëkk bu nekk am na district sanitaire. d'accord léegi district sanitaire bi jox ko poste santé yi ak centre santé yi si yi mu couvrir. loolu mooy circuit. Mhm. publique boobu nguur gi da koy subventionné. moo tax garab yooyu di euh, am qualité. ba pare seen njëg di jàppandi. di waaw loolu mooy circuit public tey jii askan wi. Mhm. garab bu mu jënd ci hôpital bu mu jënd ci poste mhm. bu mu jënd ci euh, district bi. dañuy am njortu ne garab gu baax na. effectivement tey jii. Mhm. Euh, beneen wàll ba mooy circuit privé. privé maanaam ñun ci circuit bi ñu yëngu. boobu garab bi bu duggee Sénégal bañ saytu ko bañ xam bañ jox ko autorisation ba mu ñëw Sénégal ba mu yegsi mhm. ñeenti grossiste lañ am ñoom autorisation Sénégal fii pour andi garab bi Sénégal. d'accord te ñoom ñëpp dafa ay normes yu ñuy euh, doxee. Mhm. ay yu ñu leen di tegal. Mhm. pour ñu respecter ko pour garab bi mën a ñëw Sénégal ci anam yu gën. bu xasee ñëw Sénégal. grossiste yooyu noonu ñoom ñoo koy distribuer ñoom ñoo koy indi ak seen oto yi ba ci pharmacie bi. bu ko àndee ba ci pharmacie bi pharmacie bi mën ko jëfandikoo. pour jox ko askan wi. léegi circuit boobu dañuy garab boo jënd ci circuit boobu ne pharmacie bu loolu légal la. Mhm. dañuy garab boobu ca fañ koy defaree la jóge mhm. jaar na fu mu war a jaar yëpp. yegsi na ci pharmacie ba jox nañ la ko kooku kooku duñ ci am dara luñ ci naatable ndax baax na wala baaxul. léegi nag loolu boo xamee circuit bu baax ba nag. d'accord day yomb ràññeetle. d'accord circuit bu baaxul bi. naanaam lu baaxul lu lu lu baax moom boo ko boo ko boo ko boo ko jëlee rek boo ko génnee rek. Mhm. lu baaxul dong moo fay des. effectivement lépp loo gis nag feneen garab fu ñu koy jaayee. Mhm. te bokkul ci ñaari circuit yooyu fii Sénégal. d'accord jàppal ne garab boobu noonu tey na xel. tey na waaw jàpp tey na xel léegi nag am na ay don ah mhm. yooyu yëpp. yooyu moom beneen beneen beneen beneen fànn la. d'accord waaye daal garab naa la ñaar lañ fen ñaari lañ koy jëndee. ci pharmacie. wala ci euh, dépôt district yi. d'accord. merci beaucoup ñenn itam mën nañ ci am beneen laaj laaj bi ci am mooy naka la ñuy def ba garab googu mën a agsi fii ci réewum Sénégal parce que su ma jumul kuréel gu mag gi fi nekk moo yaakaar naa mooy DPM. Mhm. mooy direct mooy directrice. Euh, de la pharmacie de la pharmacie du médicament yaakaar naa ñoom ñoo fi nekk moom la fi gouvernement bi teg. ngir muy saytu comprimé ak yeneen yu ko nuru. Mhm. Mhm. foofu le garab buy ñëw ci Sénégal ci ñoom lay jaar. ñoo koy saytu. autorisation beeg douane yi lépp léegi garab boobu ñuy wax faux médicament uh-huh. moom fan lay jaar ba uh-huh. agsi fii ci Sénégal uh-huh. moom fan la jaar ndax jarul foofu leen dé waaw léegi direction de la pharmacie léegi sax euh, dafa xaw a évoluer tuuti léegi nekkatul direction de la pharmacie léegi agence de régulation pharmaceutique la léegi léegi agence la léegi depuis euh, ren gii nii depuis depuis 2022 bi léegi direction bi ci biir agence bi la nekk léegi léegi agence bi moom moo couvrir lépp naanaam dañ ki yokk dañ yokk dooleem yokk ay mën-mënam. Mhm. mu am budget. Mhm. donc direction de la FANAC amuloon budget mais bii moom léegi dañoo am vraiment am budget am. gën a gën a am capacité daal pour dimbali askan wi. Mhm. pour médicament bu baax mën a dugg ci dugg ci Sénégal. léegi nag ARP boobu noonu ma lay wax noonu. ñoom ñooy saytu loolu tey jii su amee euh, laboratoire bu defar garab bu bees. mu ne da ko bëgg jaay Sénégal. kooku moom moo koy demandé échantillon. bu ko demandé échantillon. Mm-hmm. mu analyser ko ci laboratoire de contrôle yi ñam d'accord ñu hmm? mm-hmm. xool ndax échantillon yooyu effectivement liñ wax ci garab gi moom lay faj. Mm-hmm. ndax lépp ngi ci biir. échantillon ñi koy seetu nag ay professeurs d'université lañ. ay spécialistes lañ. am na ay médecins. am na ay pharmaciens. bu kuréel la ab kuréel. d'accord ñoo koy seetu dëggantaan. ba xam ndax garab yi mucc naa yëpp. amul loraange liñ ci wax ci ne moom lay def ndax mu ngi ca. ndax ferñeent yi ñu ci wax ne mu ngi ca ndax mu ngi ca dëggantaan. d'accord léegi bu bu loolu amee bu dee d'accord nañ ci. Mhm. ñu bindal ko autorisation de mise sur le marché. maanaam Sénégal ñuutu maanaam ñu may ko visa comme comme yow booy tukki tey ni ngay woomee visa pour mën a tukki. d'accord garab boobu day am visa. Mhm. pour ñu mën ko commercialiser fii si Sénégal. loolu mooy autorisation de mise sur le marché. Mhm. maanaam loolu après bu ñu ko defee pare dañuy njortu ne. bu seetoo ne garab bi amul benn loraange ci nit ñi dañuy njortu ne euh, garab googu noonu mën nañ ko jëfandikoo te amul benn problème. kuréel boobu ba Euh, dox si njëgu garab gi ndax tey Sénégal defaruñ garab wala li ñuy defar garab boog néew na maanaam 5 pour cent la presque la ñuy defar garab. 95 mhm. pour cent yëpp dañ koy importer te garab bi ñëw. Mhm. ñu ko defar ah ñoom lañ ca def ah lañ ca frais. Mhm. ñoom ñoo ko xam. ñoom ñoo naan garab yi day dañ ko bëgg jaay Sénégal te nangam lañ ko bëgg jaaye bu ko defee nguur Sénégal ñetti ministère ministère santé ministère du commerce ak ministère du budget. ñoom ñett. ñu am ay ndaw yoo xam ne dañuy ñëw pour waxaale garab gi pour waa Sénégal yëpp. effectivement naam tey bu ñu euh, bu doon ab paracétamol la exemple. Mhm. mu war a ñëw Sénégal. d'accord moom paracétamol bu ñuy jaayee ñaar fukk ci ci ci pharmacie yi. nit bu ko andi paracétamol am bu ko jaayee ñeent fukk bu boobaa nguur gi moo naan ñun soxla wu ñu paracétamol bu jar ñeent fukk ndax am nañ bu jar ñaar fukk bu dee mu nga andi bu jar fukk ak juróom. su soxla nañ ko. léegi nag bësanteex ñoom bësanteex ñoom ba fu mu mën a yem. Mhm. ne lii nag fii la mën a yem su boobaa mu doo ko dugg si moo tax tey pharmacie Sénégal yi yëpp ñoom ñoo bokk njëg bi ñuy jaayee garab yëpp. d'accord loolu moo andi njëg uniformisation des prix. Mhm. ndax du ñu nekkul pharmacien bi moom mooy fixé njëgu garab gi nguur gi moo koy fixé te bu koy fixé. Mhm. dafay waxaale waxaale waxaale xool lu baree baree baree bare. ba d'accord ak ñii di dugal garab gi. pour ñu mën ko dugal. Mhm. tey jii bu garab bi seeree te suñu askan soxla ko. est-ce que dañuy euh, naan garab bi dafa seer duñ wax duñ duñ ko bàyyi mu dugg Sénégal suñu askan di si di loru ak feebar. wala ndax dañuy waxaale ba fu mu mën a yem daal ñu jënd ko bu seeree it lu ñu mën a def pour fàggu ko rek. Mhm. fàggu ko. waaw loolu moom mooy mhm. euh, maanaam rôle ARP boobu noonu par rapport ak garab yi ñuy wax nii. accord waaw lu jëm ci prix yooyu itam danaa ci taxaw tuuti li ma cay laaj moo di euh, wax nga ko suma jumul. Oh. maanaam pharmacie yi nekk fi Sénégal. Oh. ñoo yem lenn lu ñuy jaaye njëg garab yooyu njëg yi waaye yéen ci yenn pharmacie la. maanaam tax mooy pharmacie yu baax yi yu baax yi. man ñañ euh, li ngay bëgg a insinuer. d' accord man du ma leen tuddee pharmacie ndax du ñu ay pharmacie. ndax pharmacie dafa am nu mu war a dafa am dafa am lu ko lu ko lal. d' accord pharmacie lu ko am lu ko lal mooy. Mhm. pharmacien ba pare. kan mooy pharmacien ndax mooy koo xamante ne. Mhm. dafa def bac scientifique la am bac scientifique. Mhm. ba may bac scientifique ñu tànn du ñëpp ku déposé fa dëbb na da nga boo jàng pharmacie rek lañ lay autorisé nga jàng pharmacie. ñu tànn si ñi def bac boobu noonu ñenn ñoo ci gën a xarañ dafa am ay critères. d'accord léegi ci critères yooyu ñii déposé yëpp ñu xool ñaata lañu soxla. Mhm. ne bu ñu def soxlaa cent étudiants. ñu jël cent premier yi. la ñuy jël ndax mu yóbbu leen jàngal leen mhm. juróom benni at juróomi at yoo xam ne dañ ci ci classé lañ ci ci ci enfi la ñu nekk ak benn at boo xam ne recherche la leen jàngalee juróom benni at ci mbirum garab mhm. buñ génnee am diplôme de pharmacien buñ génnee am diplôme ba pare mhm. loolu ba tey taxul ñu nekk ku mën a tijji pharmacie dañuy ñëwaat moom beneen compétition bu am tam ñu ne atum 2022 bi bal bi diwaanu Touba. Mhm. war nañ fi ji ñaar fukki pharmacie moo am téeméeri pharmaciens yu ñëw déposé. ne bëgg nañ di ubbi pharmacie Touba. d'accord ñu tànn encore si téeméer yooyu ñaar fukk ñeneen ñi xaaraat dawal donc ñooñu ñoo mën a am pharmacie bu legal fii si Sénégal. Mhm. léegi leneen loo gis nag kuy jaay garab nag. Mhm. mun ñu ko tuddee pharmacie ndax yoon boobu yépp ma ma wax noonu. daanaan du yoonu neen daal. d'accord ndax euh, jàng moom. Euh, même bu dee benn at sax. Mhm. ni nga ni nga ni nga ci xam loo xamante ne. d'accord ko jàngul xamu ko. effectivement sàq du ma naan ak juróomi jàngum juróomi at. Mhm. merci. Euh, foofu nag la jafe-jafe ba nekk maanaam ñu ñuy wax yéen mënuñu la tuddee ay pharmacien wala ay pharmacie yu yu baax oh. euh, askan wi tam ñoom mënuñu koo ràññatle li tax mënuñu koo oh. ràññatle moo di oh. tey sa pharmacie ni nga xam dafa légal beneen pharmacie itam noonu lay noonu lay mel ñoom dañu jàpp ni kii ay garab la jaay te boo ne légalun pharmacie yoo xam ne légalun ñoom daanaka ñoo ëpp fit ndax ñooy gën a mën a manifesté ak yeneen ñu ko nuru léegi nag jafe-jafe bi mooy ñaari pharmacie yi naka lañ mën a def ba ba askan di leen jaawale fu la loolu wax nga dëgg sànq sànq maa ngi ciy xaw a junj tuuti. effectivement ne kuy def fraude kuy def fraude wala kuy def euh, kii day dina fexe ba nduru ndurulu kii muy toppandoo. effectivement man médicament bi ñu médicament bi ñu falsifié. Mhm. dinañ fexe ba nduru ndurulu boîte bu original bi. waaye dina am sew sew yoo xamante ne. ci biir mënuñu ko mënuñu ko modifié mënuñu ko euh, euh, mënuñu mënuñu ko nëbb daal. ñun ñi xam dinañ ko xam. waaye comme li nga wax na lu am solo la. Mhm. askan wi naka la ñuy def ba xàmmee leen. effectivement loolu nag moom mooy difficulté bii ëpp. ñun fii Touba par exemple euh, mbirum jaay mbirum pharmacie yooyu joxe noonu ñi tijji def seen enseigne def couleur pharmacie def yooyu yëpp. d'accord fii la am Touba la am. Touba waaw yeneen dëkk yi. ci mhm. luuma yi am na ay ñuy jaay garab. Mhm. waaye ci ay kees lañu ko yor ay taabal lañu yor ay yooyu noonu. waaye biir Touba rek nga gis koo xamante ne day tijji boutique am doo ci ay garab peinture verte verte blanc. am croix am enseigne léegi nag ñun nu def pour askan bi xam lan mooy pharmacie bu baax. d'accord ñun suñu kuréel bi organ regroupement des pharmaciens de la région de Diourbel dañoo waxtaan. Mhm. bi ñu waxtaanee dañuy fexe ba ñun déjà mhm. lu ñu warloo ak askan bi yépp ñu def ko. d'accord maanaam qualité. Mhm. bi ñu war a def ci mbirum euh, pharmacie. mbirum dispensaire médicament conseil yi. orientation bi. lépp ñu motale ko lieu bi millier bi pharmacie bi si boppam ni mu war a mel ni mu war a bindoo ci wàllum ci kaaraange ci lumi luminosité ci climatisation lépp ñu warloo ko. d'accord beneen dogal kii bi ñu beneen dogal bi ñu jëlaat encore pour ñun suñu suñu biir. Mhm. maanaam pharmacie yu légal yépp ku ci nekk ci buntu pharmacie am ci enseignant am. Mhm. nga bind ci docteur nangam. ndax loolu dina tax léeg-léeg ñenn ñi mën a ràññat de euh, pharmacie bu normal ah pharmacie bu normal la. waaw léegi. beneen euh, lu ñu mën a defaat encore mooy. d'accord communiquer communiquer. cest tey jii am na ay spots publicitaires yu ñu doon jàllale. at bu at bu jot dañ koy jàllale. Mhm. pour wax lim pharmacie yi nekk Touba. Mhm. pharmacie yu baax yi. quartier bu nekk quartier boo dem. pharmacie boo demee Daaru Xudóos. Mhm. am nga pharmacie diw diw diw diw diw. boo demee pharmacie nag pour yee di loolu yëpp lu ñuy dépenser la. Mhm. di ko financé mhm. pour yee askan wi. par rapport ak pharmacie yu baax yi. ak ñii di jaay garab te waruñu ko jaay te ñu tuddee seen bopp pharmacie. donc loolu ñun yu foofu lañ ci mën a yem. d'accord ndax euh, léeg-léeg ñu nuru nuru lu pharmacie ba koo xamante ne même day daa jàng. balaa moo yëg ne du pharmacie. Mhm. day dem ci pharmacie bu baax mu ne ko foo jëndee lii mu ne ko pharmacien diw mu ne ko kooku bokkul ci pharmacie yu baax yi. d'accord nga gis kooku mu day day téye gémmiñam ne ah man foogoon naa pharmacie bu baax te pourtant. Mhm. nekkul ne dafa ñàkk jàng. Mhm. waaye dañ ko dugal ci kenn ci kii boobu rek. d'accord euh, askan wi itam yaakaar naa ñu baree bari yeewu nañ ci. pharmacie bi nga xam ne baax na wala baaxul. waaye ginnaaw bi ñu ci yeewoo doolee poos yi tolloowul. tey ñu bari nee nan yéen pharmacie yi nga xam dañ neen légal wax dëgg yàlla seen ni njëkk dafa xaw a ñi nga xam si nii jàpp nañ ñoom légalun seen i ordonnance seen i garab mm. demewut noonu itam mm. baaxul mm. téewuti ñoom la ñuy gën a soipu dafa jënd parce que doolee poosé tolloowul njëg yooyu itam est ce que du a def taxaw seetlu gën cee waxtaan encore waa mm-hmm. wàllu wàllum njëg yooyu noonu sànq wax naa naka la ñuy naka la njëg yi dañ koy fixé mm-hmm. loolu du duñ ci euh, ñëwaat d'accord euh, njëg yi d'accord jafe-jafe la ci askan bi si Sénégal bi yëpp. Mhm. muy man mu ci yow muy ci mhm. euh, askan bi koy jëfandikoo. d'accord jafe-jafe la. Mhm. ndax garab cher na. waaye tooguñu rek ne garab dafa cher rek toog banque suñuy banque suñu baaraam. waxuma ci cheraay boobu sax ci ah. garab bi en tant que garab bu baax mais yéen waa Touba. ñu da ngeen a particulier parce que comme li nga wax léegi Touba rek nga gis pharmacie boo xam ne day ubbi ba noppi di jaay mel ni comme pharmacie. maanaam yéen yéen ñi fi nekk ndax mun na dafiy pexe. ba pharmacie yooyu fi nekk itam même bu fekkee mënuñu fay jóge hmm. ñu xool ngeen def seen i prix yi mu mën a méngoo wala mënul waaye ñii bu ñu jaayee bu ngeen jaay ñaar fukk ñuy jafe ndax ah, euh, koo xamante ne dafa nekkul ci yoon ah, kooku moom da koy bàyyi ci yoonam rek ñun mënuñu wax ñoom lenn mënuñu mënuñu méngalante suñuy njëg seen i njëg mm-hmm. mënuñu euh, méngalante suñu couleur ak seen ñoom ñooy jéem méngoo ñun ndax loolu autorité bi ndax naan nañ ci ñëw moom moo moom moo war def rôle ci loolu noonu njëkk ji ñuy jaayee ñoom ñoom seen seen ñoom ñoo xam lan moo ñu koy jaayee d'accord lan moo tax léegi lan moo war a mën a tax tey garab bi ñoom defaruñ ko waaw di ko jaayee njëkk bu gën a yomb mm-hmm. que pharmacie yi légale yi luñ koy jaayee ñaar mën na ne ñaar mën na ne mm-hmm. mu am circuit parallèle li ñuy wax euh, faux médicament tëggantaan maanaam garab boo xam ne dañ ko defaree ci usine boo xamante ne amul norme usine boo xamante ne warul defar garab. amul kayit. defaree ko fa. Mhm. jàllale ko ci transport boo xamante ne warul transporter garab. ndax bu ñu ko defaree foofu rek moom mënuñu ko jaarale ci circuit circuit normal bi. transport boo warul transporter garab. Mhm. ñu andi ko Sénégal jaarale ko fa mu warta jaar parce que mënul jaar por mënul jaar aéroport. Mhm. mënul jaar douane. su fa jaaree it dañ koy nëbb ci ay carton. ci ay kees. ci ay suufu sasi. d'accord pour mu dugg ci. loolu amul njëkk loolu warul am warul loolu zéro franc la war a jar. d'accord zéro franc la war a jar bu nga ko jaayee fukki dërëm. Mhm. jàppal ne nax nañ la ndax loolu amul njëkk ndax baaxul. tey jii bu ko pharmacie di jaayee ñaar fukk. Mhm. ñoom ñu ko jaayee fukki dërëm te ñoom li ñuy jaaye amul benn ferñeent buy faj. daanaka yow mu ko jëndee fukki dërëm foog ne da ngaa économiser fukki dërëm. Mhm. économiser fukki dërëm sa fukki dërëm yi nga jug dugal dugal foofu da nga koo sànni merci beaucoup te taxul te teewul ni nga jindi war garab ndax boo amee sa jàngoro war koo faj ñu ne la garab bi garabu tension la boo ko naanee sa tension dafa war a wàcc nga naan ko tension ba taxaw fu mu taxaw bañ a wàcc fekk jëndee nga ko njëg loo xamante ne mhm. yaay ngi jàpp nga ne njëg bi yomb na jàpp nga ne njëg bi yomb na mu mm, fekkee yow lool lool nga moon yow yow yow yow yow yow yow yow yow sa junni nga yor. korkoral ko korkoral korkoral garab di jar huit mille dépôt bi na la la koy jaayee cinq mille fekk yow junni boobu balaa nga koy am daj nga daj nga lu ne. effectivement nga jël junni boobu jox leen ko. Mm-hmm. ñu jaay la garab booba sa tension wàccut faw nga delluwaat hôpital. dagaat ticket ñu bindaat la ordonnance. nga delluwaat pharmacie. Mm-hmm. pour jëndiwaat garab boo xam ne 8000 lay jar. boo xam ne moom moo lay faj. Mhm. donc tey jii. Mhm. boo jëlee ci 5000 bi nga ñàkk bu njëkk. li nga dagaat ticket. Mhm. bi nga perte. ak 8000 bi nga jëndaat garab ban moo gën a yomb. bu baax bi. bu baax bi gën a yomb. tey loolu moom mooy moindre mal loolu mooy loolu mooy li gën a sedd. li si gën a dangereux mooy euh, ñàkk wàcc tension boobu noonu andil la jàngoor bu ñuy wax. AVC par exemple exemple ñu wàccul an dugal la ci nguuta dugal la AVC nga sonn say mbokk sonn li nga amoon yëpp des si d'accord ndax lan mille francs bi ñu lay wax ne moo gën a yomb mhm. alors que loolu ay nax ay nax ay ay nax kese la d'accord donc tey ji maladie rénale yi mhm. yëpp mën na la ci conséquences yi mën na la ci fekk moo tax ma ne la ñàkk xaalis bi mooy di ci gën a yomb mooy li si gën a sedd. Mhm. voilà d' accord lii itam euh, xaw ma noo koy layalee ndax askan wu baree bari ñu ngi koy wax. nee nañ pharmacie yooyu nga xam ne valable dañuy jëflante ak yéen. maanaam ci di jokkalante ay garab ak yeneen ngir yooyu it njëg yi gën a cher. askan ko wax. te fii Sénégal bu nee euh, faux médicament xel ak xalaat yëpp dañuy dem ci yor ñi yor a xalaat. mais pharmacie xel ak xalaat du jëm ci ñoom parce que dañu jàpp ne ñu ni ma wax léegi ni ñuy manifesté woo ndax tamit garab ak yooyu. Euh, ñun li ñu leen di owee ñoom. waaw mooy circuit parallèle. d'accord tey ku jàng ku jàng tubaab. dina xam ne deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. d'accord hmm? d'accord voilà ñaari droites yu parallèle mm-hmm. du ñu dajee mukk mm-hmm. ñun amuñu lenn lu ñuy wax ak ñoom wala lu ñuy jëflante ak ñoom ci wàllu médicament amul. bu dee gis nañ ko bu dee am na ñu ko gis. Mm-hmm. xëy na nag. ku yàlla rek a xam. man néew ma néew ma fépp. sama bopp laa xam ak ñi may àndal. d'accord bu fekkee am na pharmacien buy jëflante ak ñoom. Mhm. moom moo xam lan moo tax muy jëflante ak ñoom. d'accord hmm? ah si yéen am na lay jëflante ak ñoom waaye pharmacien boobu ñun bu ñu ko xamee ñun. Mhm. kooku du bokk di si suñu kuréel ñun. Mhm. ñun ñii ñun ñun ñu pharmacien. d'accord bu ñu gisee pharmacien boo xamante ne. wala ñu dégg pharmacien boo xamante ne. day jëflanteex ñooñu. ñun dañ koy defanteex moom. d'accord comme ni ñuy defantee ah. ñii di jaay faux médicament. faux médicament d'accord parce que pharmacien benn warul yàq deru pharmacien yu Sénégal yëpp. ndax loolu lu ñu waat la. lu ñu waat la ca ba ñuy thèse. d'accord bu ñu thèse dañuy def serman serment de Galien serment bi li ci solo mooy dañoo waat ne su suñu liggéey bu ñu ko tegee ci yoon yàlla nañu am ngërëmu askan wi yëpp. suñu liggéey bés bu ñu ko tegul ci yoon. Mhm. yàlla nañ doon ñi yées ci suñu askan. loolu ñu ñoo ko waat si suñu kanamu euh, jur suñu kanamu euh, nawle suñu kanamu ñi ñi ñu jàngal suñu kanamu xarit ci kanamu yàlla d'accord ñoo ko waat léegi nag ku ci deful naka su noonu nag ñun dinañ def liñ ci war def mais it dañ lay bàyyi dañ lay dañ lay seetaan tamit ndax man gisaguma ba tey pharmacien bu def naka su dul noonu mu nekk ci suñu biir ñu koy naw gisaguma ko d'accord waaw gisaguma ko. léegi nag loolu moom mooy. Mhm. tontu bi. Mhm. ci ñii di wax naan. Mhm. ñun dañuy defante ñoom léegi nag. bu dee ñii di jaay garab yu bon ñoom ñoo koy wax. d'accord loolu moom da ngeen comprendre li ñuy wax lan la dañ koy wax pour jaxase pour jaxase askan wi pour lëndëmal xeeru askan bi ndax ñoom bu leeree arrangé wu leen. d'accord bu leeree. arrangé wu leen. kuy nëbbatu di def. bëggul mu leer. day bëgg rek ñëpp jàpp ne. ñëpp ci bokk yam d' accord waaw waaye. d' accord euh, xamee ne ko noonu daal. li njëkk euh, mooy li ma lay wax ci seen kuréel gi ak taxawaay bi ngeen am. Mhm. foog ñu jaajëfal leen d' abord jaajëfal gi mooy képp ko nekk fii ci dëkk bu sell bi di Touba gis na taxawaay bi ngeen am. Mhm. communiqué ak yeneen yu ko nuru. Mhm. à chaque fois yéen a ngi jéem a leeral ngir askan wi gën ca yeew. loolu itam jot nañu duut ca baaraam waaye nax séerub xeex yen dana yomb. particulièrement fii ci dëkk bu sell bi di Touba. ndax ville spéciale la wax dëgg yàlla am na yu bare baax nangu nañ ko fi nanguwuñ ko ci yeneen dëkk yi. ndax itam dana yomb ngeen mën a euh, xeex seen seen li ngeen bëgg a dëgg-dëgg fii ci Touba dana yomb foofu. waaw euh, xam nañ ne du yomb. d'accord ndax bu doon day yomb. Mhm. daanaka ñaar fukki at ba léegi ju koy xeex. est que te loolu euh, dajagul ba léegi daanaka ñetti ñetti ñetti président jaar nañ fi. Mhm. fekk nañ ko bàyyi ko fi. Abdou Diouf fekk na fi bàyyi ko fi Abdoulaye fekk na fi bàyyi ko fi Macky Sall mu ngi nii moom mënu ko ci dara. effectivement donc tey jii nii. bu doon xeex bu yomb donc dañ na bu yàgg. Mhm. du yomb. d'accord ndax euh, li waral du yomb. Mhm. Touba daanaka la installé woo ba dëgër fi. est que li waral mu installé ba dëgër fi nag. Mhm. foog ñu dellu ci waat ci tuuti. tey jii euh, dépôt médicament li ñuy wax dépôt. comme ñoom ni ñu koy oowee fii di dépôt. d'accord dépôt ci këyitu pharmacie ci. règlement pharmacie. Mhm. dépo lu am la loo xam ne am na ci kayitu pharmacie yi loo xam ne règlement la dépo war naa mën a tijji waaye dépôt ban dépo moo war a tijji. effectivement ban dépo moo war a tijji. Mhm. dépo bi war a tijji maanaam mooy dëkk boo xamante ne ñaar fukki kilomètre ci wërgal. d'accord amul pharmacie foofu am na droit ñu demander autorisation pour tijji benn dépôt dépôt boobu ñuy tijji. Mhm. pharmacien bi ko gën a jege ci ñaar fukki kilomètres yooyu noonu bi gën a jege. d'accord moom moo war a bind autorisation bi am ku mu fa teg jox ko ay garab liste boo xamante ne. Mhm. du garab yëpp sax liste boo xamante ne liste bu limitative la liste bu yemamaay. Mhm. ne garab yi dépôt boobu mën na koo jaay ci contrôle pharmacien bi nga xam ne mu ngi si ñaar fukki kilomètres moom moo gën a jege si si ñaar fukki kilomètres. d'accord bu ko defee. Mhm. contrôle bu tey ji ba ma leen jëyee tey ci pharmacie ci dépôt boobu. Mhm. pharmacien boobu moom mooy responsable. moom mooy saytu. Mhm. qualité bi moom mooy former. Mhm. ki fay nekk ki fay nekk dafa am dafa am critères yi moo def. dafa war a jàng ba minimum am BFEM. d'accord lépp ay critères la. ñu jox la kayit autorisation boo xam ne dañ koy renouveler. léegi dëkk boobu noonu. bés bu amee pharmacie bu dugg ci euh, ñaar fukki kilomètres yooyu noonu. d'accord dépôt bi day dëj ñetti weer lañ ko may pour mu dëj. Touba nag am na jamono. Mhm. pharmaciens yi bëriwuñ Sénégal. d'accord comme ni ñu bëriwuloon Touba noonu lañu bëri ñàkkoon a bëri Tamba ñoo lañ ñàkkoon a Kolda Ziguinchor ak fépp. d'accord fu si nekk daanaka benn pharmacie la amoon. Mhm. Touba amoon benn pharmacie. Mhm. amoon ay dépôt balaa benn pharmacie di ñëw. yooyu nag euh, bi pharmacie yi ñëwee dépôt dañoo waroon a tëj ñoom ñëpp waaye li yàlla def gis nañ ne ñoom dañoo continuer dañoo gën a yokk sax. la ñu war a xam ndax tey bu ñu leen xayma. mun nañ ne mën mat nañ ne trois cent ba trois cent cinquante. dépôt fii si biir Touba ci ñoo xamante ne ñoo tijji seen buntu te voilà kenn xamul euh, lu ñuy lu ñuy lu ñu naka lañ ko tijjee. ci yoon wu jaarul yoon ci lu jaarul yoon. ñuy xayma. Mhm. population bi leen di fréquenté. 2015 am na benn thèse pharmacie bu ñu defoon ci maanaam yooyu doon 2015. d' accord ci diggante bi nag soppeeku na. Mhm. mu ngi wane woon ne. 84 pour cent population bi. maanaam askan wi boo jëloon askan wi téeméer nit juróom-ñett fukk ak ñeent yi. Mhm. mës nañ laale ci dépôt yooyu noonu. mës mës nañ fa jënd garab. ko donc pour dire lu mu ni mu yaatoo. effectivement ni mu yaatoo. Mhm. donc loolu nag tey jii bi ci pharmacien yi ñëwee nag. Mhm. automatiquement dépôt yooyu dañoo waroon tëj donc fépp képp ku fi wax dépôt la yor fi ñu toll nii dépôt illégal la nañ ko. d'accord ndax amatul benn kii mënatul am garab. ci peena mënul am garab. ci euh, grossiste yi. moom am garab ci pharmacie yi. Mhm. donc garabu fraude dong la mën a am. d'accord tey jii pour wan la lool rek euh, solo bi. d'accord jamono ji si ginnaaw gis déggul ngeen garab yi defoon Gàmbi ay jéeya. Mhm. ay lorange. Mhm. siro yooyu noonu bañ ne woon am na juróom-benn fukki gone yu mu faat. d'accord siro yooyu noonu amul Sénégal ci pharmacie amul Sénégal ci PNA parce que amul autorisation Sénégal. ndax Gambie la moon autorisation. Mhm. mais autorisation Gambie waa Gambie defoon ko duggoon ko seen kii léegi ñoom loolu bu bu duggoon Sénégal tey. Mhm. ci circuit parallèle kese la mën duggee Sénégal. d'accord te bu duggoon Sénégal ci dépôt yi dong la mën a dem mënul dem ci pharmacie yi ndax laale wuñ ak ñoom. nii lañ def ñaari ñaari euh, wàll yoo xamante ne. Mhm. nañu féete. duñ laale ba mukk d' accord donc loolu moom mhm. lu jëm ci séddub xeex yéen ngir loolu yi man fee bàyyi ko rawatina dëkk bu sell bi di Touba. Hmm. ndax itam yaakaaroon ni war ngeen a mën a soppi aw toogin wala bokk aw xeexin li tax ma wax loolu moo di euh, Touba njiita fi ne. xalifa hmm. général des moo fi nekk mooy yor kàddu dëkk gi. Hmm. yéen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla. même ku bëgg lu baax itam wala boog kuy jënd lu baax ci yéen lay ñëw jëndee fa lu baax ndax su ngeen booloo woon seen kuréel gi dem ba àgg ci sëñ bi ak moom xamal ko li nekk ci dëkk bi effectivement ak mbir mi naka la demee jàpp ni dana ànd ak yéen ngeen xawloo beneen pexe. waaw loolu loolu jóguñu si. waaw kay jóguñu si saa su ne ñu ngi koy def. saa su ne bu at bu jot. Mhm. dinañ daje sëñ bi. d'accord dinañ ko yaar dinañ ko jox suñu àddiya. Mhm. dinañ waxtaan ak moom. Mhm. xalif bi fu mu seen nekk nag. d'accord dañ koy def loolu li mu la wax tamit depuis jamono yi deux mot na ñaar fukki at bu ñu koy defal léegi. ñu saafante. yéen a koy leeral li nekk ci dëkk koy leeral léegi. Mmh. Euh, bu weesoo sax ziar boobu ndax ziar moom. Mmh. daanaka euh, comme ay murit la ñun ñëpp. d' suñu àddiya la ñu yóbbu. Mmh. donc daanaka moom mooy solo solo su solo su njëkk sa. d' accord dañu ne waxtaan rek moom moom moo di wax. waaye solo su njëkk sa mooy yóbbu suñu àddiya. léegi bu loolu weesoo. Euh, mois de novembre bi biñ biñ génn nii. le 23 24 novembre rek. d' accord am na ndaje bu yaatu bu ñu organisé fii si Touba. boo xamante ne. kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa yi di saytu wàllu kaaraange dëkk bi kon ñoom ñëpp lañ ci convié woon ñaari fan la woon. Mhm. benn fan bu njëkk bi Diourbel ñaari lañ ko defee boobu euh, force de défense et de sécurité loon gendarmerie police douane lañ jël sensibiliser leen. Mhm. par rapport ak garab lan mooy garab bu baax bi fan lay jaar fan la war a jaar jox leen lépp ay jumtukaay yoo xamante ne. Mhm. ñoom tey bu ñu garab bu baax ak garab bu. Euh, safaan ba dinañ ci rajatle d'accord waaw bu ci loolu weesoo vingt 24 bi mhm. ñu ñëw fii si Touba résidence Khadimou Rassoul bi si Daaru Marnaan mhm. boobu ñu invité kilifa diine yi kilifa aada yi muy mairie bi muy communicateur traditionnel yi muy consommateur yi muy médecin yi mhm. ñëpp muy procureur muy juge ñëpp lañ jox invitation ñu daje fee ci waxtaanee mbirum problématique u vente de médicaments illicites à Touba balaa ñoo def loolu dañoo dem ci xalif bi sëñ Muntaxa d'accord di ko ñaanal mu gudd fan te wér. donc dañ dem ba ci moom. sàkku ndigal mu jox ñu ci ndigal. Mhm. nañu mbirum garab yi moom lu bari dafa bari lu ci lënt comme ngeen ko bëgg leeral. waaw am ngeen ci sama ndigal leeral leen donc si lañ doxee leeral loolu waxtaan ci ñu communiquer ci. Mhm. léegi nag ba tey jii nii am na ñu ci ŋànk. xam nga boo ci amee intérêt. Mhm. yow foog nga jéem a déformer dëgg bi pour mën a yow justifier yow li ngay def ba tey jii nii euh, am ay lobbying ay ay ay ay ay kuréel yoo xam ne. Mhm. ñu ngi jóg di wax di yàq deru pharmacien yi di wax ne li ñuy def daal daal mbirum mbirum mbirum mbirum fiiraange mbirum. wujje la mbirum mbirum wujje la mbirum nangam la waaye askan bi si boppam boo dëgg buñ buñ dëgloo. Mhm. li ñu wax foofu yëpp. ah liñ fa kii yëpp vraiment njëriñu askan bi donc moom moo tax ñu. ñoo justifié ak dëgg maanaam yow lii moom. amut leen luñ ci mën a teg. maanaam di jaawarloo wala di joowloo oh. ci koy dem maanaam ak loo koy wax oh. ndax garab bi moo baax garab bi baaxul loolu ñëpp xam nañ ko oh. dañoo bëgg defi pexe ngir garab bi nga xam ne baaxul baaxul ci askan wi ñu fexe xool lu mu fi jógee wala boog ñu xool na nañ ko tëggaatee loolu yaakaar naa jërul kenn di ci di ci mm. seen nag ginnaaw jox nañ ci ndigal yéen di seen seen fa lañ fa lañ fa lañ ci yem fa lañ ci mën a nañ force de l'ordre yi autorités yi mm-hmm. sensibiliser nañ euh, autorité religieuse bi mm-hmm. autorité état bi. Mhm. Euh, ba ci président ba ci président Macky dem nañ ba ci moom. Mhm. boobu c'était en mille 2017 kuréel gi. Mhm. syndicat des pharmaciens privés du Sénégal ak ordre des pharmaciens. ak man mii maa représenté woon ñi nekk Touba. ñu dem ba ci président Macky Sall. pour leeral. d'accord li ne li am Touba loraange bi mu am ci askan bi mu ne ñu dina ci jël ay. ndogal ba tey ñu ngi xaar. d'accord mais yéen amoo ko leen autorité dugg ci pharmacie yi nga xam ne légalul ngeen taxaw wax ak ñoom. mënuñu ko d'accord. mënuñu ko ndax loolu dafa am ñu ko yelloo tey jii dëkk nul ne peut faire justice soi-même kenn mënul fajal sa bopp mhm. dafa am yoon bu fi nekk pour faj Touba it dafa am yoon bu fi nekk kilifa bu fi nekk moo ne mhm. moom mooy joxe ndigal donc même yoon même bu yoon bi war a faj mhm. bu ko tënkee parce am na loi bu ci am loi bi dafa ne képp kuy jaay garab te amuloo ci autorisation buñ la si jàppee di nga dañ la fayloo deux cent quarante mille ba quatre cent quatre vingt mille. bu ñu si benn yoon. d'accord bu si jàppaatee. amende bi dina dem quatre cent quatre vingt mille de de un million deux cent. ba deux millions quatre cent amende bi. d'accord donc ba pare mën na si tëj prison euh, juróom-benni fan ba juróom-benni weer loolu la loi Sénégal wax donc tey ji mhm. jumtukaay yaa ngi fi waaye lu koy doxal. moom moo moom moo des mooy volonté politique maanaam am yéene dindi fi nii ndax euh, ñu bëri li tax mënuñu ko fee mënuñu see wax mbirum politique moo tax ñii di politique mhm. jàpp nañ ne bu ñu laalee Touba xëy na waa Touba duñu leen votel mhm. ñii di nangam ñii di parce que tey jii euh, sëñ bi tey buggul lenn lu dul luy taaral dëkk bi ndax tey euh, ñàkku leen ma rebondir si loolu sax. Mhm. jamono yi passé génn bu mujj bi. Mhm. ci mbirum sécurité la wax. sécurité delloo lépp euh, gendarmerie mhm. ak police. d'accord pour wàllum sécurité dëkk bi. waaw sécurité dafa yaatu. sécurité alimentaire ci la bokk. moo ëpp solo sax. sécurité alimentaire. boobu noonu buñ sa buñ fa taxawee. lépp luy dépôt buy jaay garab bu bon. dafa war a jóge Touba. ñàkkul li ndax sécurité alimentaire boobu noonu. tey ñaata nit ñoo fi loru ñoo fi faatu te garab bu bon moo leen faat maanaam dañ dañ dee jullit. d'accord nangu dogal. Mhm. moo tax lu bari duñ ko fësal du génne da gis waa kër ndogal am mu leer na leen ci diw garab bii la naan mu am lu mu sopp ci moom ba. Mhm. ba mu faatu. Mhm. ñu jàpp ne ndogal yàlla la duñ ci topp. duñ ci wax duñ ci def. dem rob ñaanal ko. tey ji bu doon beneen dëkk lañ nekk. ñooñu dañ leen topp léegi nag ndogal boobu noonu ndogal ndogal yàlla boobu ñu jàppe nag moom mooy nëbb lu bëri d'accord léegi tey jii sécurité alimentaire boobu ma lay may may waxaat ba day mhm. nit ñoo fi am feebaru roño yoo xamante ne garab gu bon moom moo leen moom moom moo leen ko yóbbee ñaata nit ñoo fi am AVC garab tension bu bon moo leen ko yóbbee ñaata nit ñoo fi am coma diabétique garabu jabet bu ban moo leen ko yóbbee mhm. donc loolu sécurité la xam sécurité moom mhm. maanaam lépp luy aar nit ki dañ ko war a dañ coo taxaw foofu nag moom. Mm-hmm. appel bu may lancé la. d'accord moom c'est un appel que bu may lancé. Mm-hmm. ci kilifa diine yi ci kilifa aada yi ci ñuy yor vraiment sécurité dëkk bi. d'accord que ne ñii di samba booy yii di toj ay kër. Mm-hmm. di toj ay station. toj ay boutique. wala di faat ay nit. baax na ñu euh, mettre leen hors d'état de nuire. d'accord waaye am na ñoo xamante ne. ñu ci dëkk bi di def lu mel noonu. tey ñu ngi fi tijji seen buntu kenn. waxu leen dara. ñooy mooy ñan. mooy ñi nga xamante ne dañuy jaay garab yu baaxul dañuy jaay garab yu seen bopp ay pharmacien te du ñu ay pharmacien. merci beaucoup maanaam yore ay dépôt. Mhm. fii ci biir Touba. d'accord yu jàpp na ñoom dañu war a jaay garab. Mhm. te wax dëgg yàlla. Mhm. amuñu xam-xam bi. d'accord amuñu doyoo bi. waruñu koo def. d'accord jërëjëf euh, docteur ñu ngi ci jeexantal bi jamono ji waxtu wi xooj nañu euh, rafetlu kàddu yi nga xam ne jib na fi euh, vraiment seen mbootaay moomu wax dëgg yàlla mu am solo loolu ak taxawaayam Euh, lan mooy doon kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gu mujj bi. Mhm. Euh, dellusiwaat rek ci cri du cœur bi ma doon def léegi nii. d'accord moom mooy doon kàddu gu mujj bi. Mhm. donc tey jii garab dafa nekk lu sensible loo xamante ne. Mhm. kenn waru koo foowee. d'accord ndax boo xoolee bu ñuy wax lan mooy garab. dañ naan garab poson la boo xamante ne. boo ko jëfandikoo. ca ni nga ko war a jëfandikoo. mu la. tawféex. d'accord boo ko jëfandikuwul. Mhm. ca na ko war a jëfandikoo. Mhm. mu la loraange. d'accord loolu rek tënk na. Mhm. daanaka lépp léegi nag ni ñu ko war jëfandikoo moom mooy ca fañ ko war a. jëfandikoo bu dee ci hôpital ba mu ne ñoo xam ne foofu la bu dee ci pharmacie bu baax ba la ñoo xam ne foofu la. lancé appel nag autorités yi autorité religieuses yi. ñu xam ne ñun ñëpp ci askan bi lañ bokk. ñii di jëfandik ñii di def trafic médicament. di yor ay dépôt yoo xamante ne dépôt clandestin la ñu néew lañ ci askan wi tey boo jëlee Touba ñu ne am na plus de deux millions d'habitants ñii di def loolu noonu moo dañu téeméer wala ñaar téeméer d'accord est-ce que ñaar téeméer nit ñooñu noonu dañ leen war a bàyyi ñuy lor ñaari million doomu aadama ndax lan ay taalibe lañ wala ndax lan dëkk bi dëkku dëkku dëkku bu yërmande la parce que man bu ñuy wax dëkk bu spécial ci Touba. Mhm. spécial ci lu baax rek laa ko bëgg dégg. Touba spécial na ci lu baax. ci lu baax spécial na ci jàngum alxuraan. Mhm. Touba spécial ci daara yi. Mhm. Touba spécial na ci ci dimbalante bi. Touba spécial na ci sécurité. mais bu ñu nee spécial ci Touba rek lu ci ëpp si safaan lañuy wax. effectivement oto yu baaxul oto yu amul kayit. njaayum nga euh, arme. Euh, cambriolage euh, jaayu garab yi bon. Mm-hmm. lépp loolu la ñuy wax ci mbirum mbirum juste rek nga may ma xam naa ne euh, waxtu bi xoj nañu. d'accord waaye mënu woon ñàkk wax ci hôpital hôpitaux yi nekk ci biir Touba. bismillah tey jii mm-hmm. Touba am na ñetti hôpital mm-hmm. ñaari hôpital de niveau 3 ak benn hôpital de niveau ah Essane Santé niveau 3 yi mooy Ahmadou Hadim mhm. ah Matlaboul Fawzeyni niveau 1 bi moom mooy Ndamaatu hôpital yooyu noonu képp ku jaaxle fii si Touba ah li wër Touba foofu lañ lay yóbbu hôpital yooyu boo demee ci hôpital yooyu noonu li ngay njëkk gis mooy garab yi nekk ci kanam hôpital nag moom dindi dépôt yi nekk ci am na solo lool mhm. waaye looloo ci maanaam pharmacie yi nekk ci yooyu moo ci ëpp ndax kii malade bi ñu yóbbu urgence ki ñëw urgence. Mhm. kooku bu ñu nee mbokkam demal jëndi garab yi. Mhm. du xool fan mooy pharmacie na gis lu mu amee garab rek day dem jëli. te bu yàlla defee. Mhm. mu nekk urgence ñu jox ko garab boo xamante ne amalu ko njëriñ. wala garab boo xamante ne. Euh, defarin bi baaxut. wala garab boo xam ne am nay tooke. bés bu ko jëfandikoo fa lay yem. te kooku bu mu ñëw hôpital. taw feex la bëggoon. li ko taxoon mu jëm hôpital. am wér gëram moom la bëggoon. mais bés bu ñu ko bàyyee bés bu ñu bàyyee ñoo ñu nekk foofu. d'accord taux de mortalité bi si biir Touba day gën a yokku tey jii du mel ni hôpital mat loo fawte ni mhm. am na ñu bëri da leen yebal demal hôpital mat loo fa ñu ne du ma dem foofu ma foofu boo demee da faatu lan moo tax boo demee da ngay faatu du ci médecin yi du ci prise en charge bi. ca garab ya la ndax boo nekkee urgence. Mhm. ñu war la sauver léegi léegi léegi. ñu mhm. jox la garab ne da war a yëkkati léegi léegi léegi garab boobu jëriñu la dara da ngay mujj wàcc. jërëjëf donc loolu nag moom vraiment mënu ma si mënu ma ko si ñàkk. bañ a souligner ndax euh, au moins autorités yi nañu dimbali. Mhm. ci karamu kanamu hôpitaux yëpp ñu débarrassé. Mhm. dépôt yi ne foofu muy jéemul. muy 28. muy Daaru Tanzil muy Kër Ñang foofu yëpp déppo yi fa nekk yëpp. il faut ñu jóge ci bunt hôpital yi. ku leen fekk ci marché ba nag su boobaa ñu xam ne kii moo leen fekk ci marché ba. volonté. Mhm. waaye au moins nañ ko sàmm di af appel directeur d'hôpitaux yëpp. d'accord ñu taxaw ci combat boobu. Mhm. ndax réputation hôpital bi. ah ñoom seen njëriñu liggéey. Mhm. balaa ñu koy mën a gis foog askan wi wér pour askan wi wér. foog si bi baax. jërëjëf garab yi baax. jërëjëf wasalaam jërëjëf docteur Adjuma vraiment kaddu yi am na solo lool rawet na ci leeral yi mujj yi nga mujjee def wax yàlla ndax nekk na loo xam ne ñun ñi sax bàyyiwuñ ci woon xel. Mm. kon lii da ciy am solo lool. Mm. sant leen gërëm leen ci seen taxawaay kuréel googu ngeen wax yàlla nga xam ne moom ngeen taxawal di dox ci liggéey bu am solo mm. yàlla na ci yàlla jàppale ba ngeen am ca ndam. mbokk yi mi ngi noonu loolu moo nekkoon émission jàngat tey jile ñu dalaloon euh, docteur Adjuma Diouf moom leen nekk secrétaire général ci fàttali léegi muy regroupement des pharmaciens de la région de Diourbel mbokk mi nga ko sant leen ci déglu bi teelu ko topp gi di ko sàkku ci yéen naka di sant tey gërëm euh, équipe technique Rafah TV bi jàpp ci liggéey ba mu yemb déjà Mourtala ñu ngi koy ba dimanche ak jàmm jërëjëf dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen